du nangu ay détails daal di yàq seen diggante euh, ñoom ñaar ñu jàll ci euh, Papis moom nag euh, ñëw na daal di attaqué loolu li ba noppi nag daal di koy menacé que ni nag dina publier ay photos bu fekkee ni que rek génnul kër gi mu mel ni kon moom Papis xalaatul bàyyi relation papaam ak lool li di avancé ndax nekk na loo xam ni munu koo seetaan ndax métti na ko trop ba tax na nag lépp lu mën mi ngi koy def ngir lool li daal di génn kër gi waaye mel na ni loolu li bugg ko won ne ko li mu wax tiital na ko waaye nag ko benn yoon ku xaawi suturaam ndax euh, li nga xam ni mi ngi koy wane te mooy kilifteef donte xale la waaye kilifteef bi muy wane ak nit ku baax bi nga xam ni moom la nit xam ci moom ñu jàll ci maa ji moom nag euh, elle de savoir que rien ne pour ki nga xam ni moo di bàyyi euh, ci mariage am ak ki nga xam ni moo di loolu li donte nag bugg koo wane ba tax na nag mu bëgg a forcer bàyyi ngir mu jox ko ayam loolu ko xam na bu baax a baax que ni li dal bàyyi si moom rek la jógee waaye bàyyi moom itam mi ngi xalaat li ko dal nan la ko war a dalee ndax moom lépp normal doon ci moom muy loo xam ni kon lu doy waar la waaye yaakaar naa bu xalaatee rek dina war a xam ndax euh, d'habitude euh, boo takkee euh, ñaareel su fekkee ni que da nga koo rek daal di wax sa aawa na rek am problème te ku ne xam na ni maa aji yàgg naa xam ni bàyyi mi ngi nekk ak loolu li ba koy waaj a muy loo xam ni kon lu doy waar la waaye itam maa aji waroon na ko cee bañ a fekk ndax nit da ngay xool àq rawatina àq sa diggante ak nit ndax comme li ñuy wax rek yàlla mën na baale ay ay tooñ yi nga xam ni tooñ nañ ko ko ko waaye tooñ yi nga xam ne si entre nit ak nit loolu yoonam di ci nekk kon maa aji war na xool lu baax a baax fi muy teg tànkam ndax àdduna jarul yenn yi ñu jàll ci papis papis nag moom dafa ragal euh, que ni bu publier vidéo yi comme si inspecteur mun na koo indil problème euh, ba tax na nag mu bëgg cee rek daal di génn waaye ki nga xam ni mooy bandi bi nga xam ni dafa taxaw rek ngir yàq ki nga xam ni moo di loolu li mi ngi koy rassurer que ni moom am na ay link euh, te yi nag inspecteur ku ndaw la rek ci ñi nga xam ni xam na leen pour rek daal di am li mu bëgg mu mel ni kon moom papis daal dinay jël xaalis bi ngir publier vidéo yooyu waaye nag euh, niñ ko gisee ak euh, ni muy waxee ak xaritam bi mel na ni bëgg koo def ndax euh, day ragal risque yi nga xam ni moom moo ci nar a nekk ñu jàll ci inspecteur moom tamit rassuré na loolu ndax xamal na ko ni dina ko protéger tey yi nag dina ko dina fexee rek ba mu daal di génn ci mbir mi ci ni mu gën a gaawee te du ci am benn problème bi jeexal ak séquence mujj bi ñu gis ni ennemi loolu bi moom nag li mu bëgg mooy daal di maîtriser inspecteur daal di koy teg ci